maa leen fay bu baax a baax di leen jox seen wàcc wàccuwaay. maam yaay Fallou Fallou laa uuf ni moo ngi nii yaay Fallou daa leer. Hmm. tey bésu sëñ Fallou la muy Kazu Rajab bi sa digganteeg sëñ Fallou. waaw sama digganteeg sëñ Fallou moom Sénégal gépp a ko xam nee naa leen partout dans le monde ñëpp a xam ni maam Ndiaye Savon mu Serigne Fallou rek Serigne Fallou rek laay topp topp ma keneen. Mhm. su suba ba léegi nit ñee ngi fi nga joxe ay berne àndu jàmm yéeg mbokk yeeg ñëw ñëw wu si la gis nañ fi sax ay nduróole waaw euh, xam nga buñ nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yee koy wax ndax man ñi ma doon àndal daaw ñoom lay àndal ren ba tey ñi fi nekk ñëpp te def ote samay ami d'enfance lañ maa ñoom ñoo juddandoo ci koñ bi yarandoo ci koñ bi màggandoo ci koñ bi léegi kon su ma xewlee yoon la ñoom ñu ñëw jàpp ci may sant Serigne Fall te Serigne Fall nag macha allah amul noon ñëpp a ko bëgg boo koy sant fu waaye dégg ni danga koy sant da ngay ñëw ndaxte ñi ci internet bi ñëpp a ñëw ñëpp ñëw wuy si ma pour ma sant Serigne faal lu keroog nga def anytime tey nga ñëpp sénégalais yu bari mere woon la ci naan maam lan moo tax alalam du nga investir ci diine tey nga ñëw woote lii Pikine gi yëpp génn lan ngay wax ñooñu. waa Sénégal xam nga nekk fi dafa metti te ñoom xamuñu dañuy jugé te xamuñu en état bi bi ma koy def sama juróomi dërëm dugg ci wax naa ko waxaat bañ na ko ba ñuy ñëw te ñu jugee. ñi nekk États-Unis may ma xaalis ne ma def ko sama dërëm defu ci man li may def li ci gën a ndaw Sénégal dafa nekk dëkk boo xam dafa méttee nekk loo def dañuy wax te man su may def du ma du ma li man li may dimbali doomu aadama yi duma ko wane man wax ji rek la ñu xam ci man mais li may def ci suuf moo ëpp li may wax. man nan ngay dundee commentaire yi boo koy seetaan nu mu positifé ak nu mu négatifé. waaw négatif yi moom dama leen euh, yërëm ndax rate vie la. gis nga boo ratee fii wut sa connexion moo waral ni ngay toog bu nit defee dara ngay toog di ko waxal lu ñaaw te boo amul xol bu neex da ngay toog ci commentaire di wax lu ne lu lu lu bon mais ñi nga xam ne seen xol dafa neex bu ñu ci commentaire dañuy wax lu baax ak ñi yor noppi gar mi yor clavier bu gar mi ñoom du ñu wax lu ñaaw ñi ñi ñi yoru clavier gar mi rek ñooy wax lu ñaaw. loolu jarul misaal bi mën na bañ a sori ndax ku ci nekk sa bopp doy na la misaal yow boo doon commentaire sa bopp looy commentaire sa bopp lu baax kuy commentaire kooku rek laay toog sama digganteeg Serigne Fallou samedi la ak dimanche bis doxu ci en temps bi ma defoon lii mooy sama yoon man parce que man ñi ma xam ñëpp xam nañ ne sant sëriñ Fallou rek a ma tax a ko erreur nag mënta ñàkk tey yow sama en boobu cat la parce que cat buy génn mënoon naa génn ci leneen waaye fa ma ko defee ci digg mbed léegi bu ma jëloon appartement def ko lay gën a ñaaw jëli bi du gën a ñaaw waaye sant Serigne Fallou rek Serigne Fallou dañoo baaxal. fan si lay bëggee ndax àdduna Mame Ndiaye Savon Mame àdduna waaw maam Ndiaye Savon nag maam Ndiaye Savon partout dans le monde la parce que tey ñi ñëw xaw ma leen Koungheul sax dañoo ñëw waa Koungheul ah waa waa waa fu nekk fu ñu sax am na ñu fa jóge ñëw loolu sant yàlla mënu koo wees ndax nit woote na ba sonn luye ay saisam te gisul kenn te ay nit kenn du leen du leen du leen euh, luye loolu mooy cas bi. jërëjëf maam Ndiaye. Mm-hmm. léegi yéen dal dal leen. programme euh, màggalu suñ Fall parce que comme da xew loo loo def ñu pirate ko. waaye bii kenn mënu ko xam nga lu tax kenn mënu ko damaa xëy laa laax xale yi na ci laax bi laa yam man li ma may maam lu tax maam lu tax lu mu def rek am ñeneen ñu ko def waaw mais mais xam nga yàlla yàlla yàlla mooy mooy dogal te yàlla ku mu teg loxo da ngay dem damaa xëy laal laax xale yi ne laax bi la yem ma teg ci ndekki ginaar xale yi ne ginaar bi la ma laal mis bi xale yi ne ci mis bi la yem ma taajal leen ceebu yàpp suyeer xale yi ne fa la ma laalal leen mbaxal ni ngoon léegi guddi gi ñu laal xari rek mis wi ko tubaar ko pare ko pare des na beneen reer maam yaa Kazu Rajab xale yi Kazu Rajab xale yi Kazu Rajab dañoo sañ a Kazu Rajab Zal Mbaye waxal nag xale yi fu ñu Kazu Rajab sañu ñoo Kazu Rajab nag ah. ndax Serigne Fallou li mu ko defal gum ko defoon na nga kastu rajab daa jega sil parce que euh, lu mu wax rek Zaa lay feelu si wetam waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax uh-huh. sa digganteeg sama digganteeg Mame Ndiaye nag ñi lay ma ne ko sama digganteek Mame Ndiaye nag xam nga nit ñi dañuy jaawale lu bari xam nga sa dafa am xew am te dama naan senegal xew-xew yi aayut ñàkk xew aay ñu bari dañu naan Zale Mbaye ak maam Ndiaye xew bi moo leen boole maam Ndiaye ak Zal Mbaye xew boolewu leen maam Ndiaye bi ma kay xam boobu musóori safaru gom boobu junni yi bariwul li ki ne laam rek moo ko dal doxuñu jamono bu mu la jiital ba nga fàtte see àndu démb fàttelu ay nitu démbam judduwaatuwul xam nga réew mi xale yaa ngi judduwaat xale yi ñu ngi judduwaat daaw ci heure bi maa fi nekkoon rëgal mbana yi ren ci heure bi ma nekkaat fi rëgal mbana yi maam Ndiaye Savon naa ko amul rab buy bañ géwel man doomu géwél laa jéeri ngoone sama maam maa loobe Samba ku li ma gëstoo gi ndaat. maam euh, lu maam wax rek ay feelu si. maay feelu ci kanamam ndax xam nga lu ko waral xam nga lu waral loolu maam Ndiaye Savon tubaarka dama doon fréquenté place am loolu doyatu ko mu xam ne suñu rab yi mën naa ànd mu ne ma Zal Mbaye kaay ma daggal la sareet nga liggéey ci atelier bi kon bu waxee benn dama naan fukk ba wër ko te amul rab buy bañ géwél ndax tubaarka bu amoon rab buy bañ géwél bu ma gisee du ma gisaat ndax ñun nag ay géwél lañ bu nu waaye xoolee sax nu xam lu nu xoolee. maam Ndiaye Savon dafa nekk nit ku baax. tey nga ñëw dugg ci benn ci benn liggéey boo xam ne bëriwul lu ñuy gis góor di ko liggéey. Mhm. muy affaire jaay diw ay xeesal. Mhm. tey nga ñëw dugg loolu engagement yooyu ak naka naka naka nga dundee loolu ci mbedd mi parce que Sénégal baaxoon di gis góor di jaay ay xeesal yu kenn xamul. ak commentaire yu positif yeeg yu yi ngay dund. xam nga Sénégal la nu nekk positif du fi ñàkk te njëkkee ma ko fi te ma ko fi mujjee jaay diw xamee wuñ ko sax góor waaye y' a de sot métier réew mi ñu nekk y a pas de sous-métier liggéey moo a gënal lu ma mënti am liggéey moo ma moom a gënal may war di taxawaalu mbaa may def ne naka sudul noonu loolu moo ma dugal ci maam damay dégg nag lu nekk waaye damaa watu déggu ma ndax boo bëggee dara réew mi boo bëggee dara da ngay watu déggu ma loolu moo ma loolu moo ma dal. ak ni muy waxee feemu yi xam nga di kebatu. dem ba yenn sénégalais yu bari sax du la xaw a naan naan zaal moom nga baal ma góor nga mooy góor dafa nooy dafa jigéen ne eh. yooyu yaa ngi koy dégg non. maa ngi dégg bu baax loolu xam nga loolu mënul ñàkk ci réew mi réew mii Wally sekk def na fi lu ne tubaarkàlla te dégg na lu ne man zaal faaw ma dégg ndax damaa bëgg di yegg fi Wally Seck yegg faaw ma dégg dégg mënut a ñàkk damay dégg te dégg gu sax damay gën a dégg te engagé naa nag dégg bu ñëwee tubaarkàlla ma daal di koy rangu ndax ragaluma lool doomu géwél laa ragaluma loolu. merci beaucoup ok merci beaucoup. Thank you.